maa ngi tudd Daour Ndoye di secrétaire général conseil des frais de Wakam dont est euh, président de la commission des jeunes de la collectivité Lébu tontu si loolu moom mooy euh, man duma ko traité de serviette parce que dafa am ku ko jur am ñu ko donc moi am ay doomu baay man doomu baayam doon ñoo xam ne dama leen respecté dama russe rus duma leen ay jarbaatam dañ may romb di ma nuyu correctement donc duma leen xas Karim Diop aussi du ko def mu am ay doomu ndey doomu ndeyam yooyu ma seex ak ñoom kóllëre seex ak ñoom jàmm suma famille seex ak ñoom ma am sax suma sœur buy sëy si ay doomu ndeyam te kooku waruma def loo xam ne day ñaaw si biir kër gi muy sëyee si doomu ndeyam mu am si koo xam ne tamit muy ku ñuy wax naka yàlla yërëm yaay lay jaañ doon maire boo xam ne ku am solo si suma dund la donc euh, kooku war na tax tamit man duma ko xas yàlla def tamit wakaam ni ñu bokkee dafa jege ba nga xam ne li muy def yëpp moom bokk googu moo ko ko may parce que nit ñi lu ñu bëgg a def dañuy xool ne bu ñu waxee mu ñaaw wala bu ñu defee mu jaaw donc dañuy jàpp ne yàlla dina ko jeexal rek loolu moo tax kenn waxul kenn deful ñu nag li ñuy def moom mooy alalu dëkk bi ay mag ñoo fi newoon di liggéeyal dëkk bi taxawal dëkk bi xeex ba jël titre foncier immatriculé suñuy suuf depuis 1948 ba moom si boppam juddoogul man juddooguma ñu jël patrimoine Wakam yëpp def ko sous le nom de la collectivité de Wakam mu doon patrimoine boo xam ne yàgg nañu am ak njëriñ yàgg na tax tamit mu suturaal ñu ndax magi wakaam ñu fayal nit mu jàngi école daanañ fayal nit hôpital daanañ fayal nit ordonnance daanañu suturaal nit te kenn du ko xam bu ñu demee tey ba benn nit jël suufu dëkk bi di ko jox ay ay ay ñoo xam ne ay ma jàmbal ah ay ñoo xam ne dëkkuñu wakaam doomi wakaam nekk fii bëgg fu ñu dëkk mënuñu ko am te même moom bu leen da ngay ne boy yi day dañ leen jaay leen ñun xam nañ fi ay xam terrain terrain 15 millions 20 millions mais après il se retrouve avec 10 millions wala 9 millions le reste am ñeneen ñu ko seddoo ñaay bi nga pour délocaliser les quartiers. ne dañu bëgg fii ni mu xate ñu génne nit ñi ñu dem dëkk ji si ñaay bi parce que bu fekkee ne yow euh, yaay baay bi nga dem ba say doom am ay seet sa biir kër c'est pas normal te ñun ñu am patrimoine boo xam ne mën nañ ko dëkkee ñu ne nañu jël ñaay bi jox ko xale yi ñu dëkk ji ko première fois bi ñu def ko dans les règles de l'art jox ko par quartier quartier yi jox ko par concession concession bi ñu xool kii ko war a mën a jël ñu jox ko ko mu fay ñu mu mu fay dem dëkki ñu jekki affaire jaay commencé affaire jaay boobu noonu moom moo tax ba grand mbubb boobu muy xase nit ñi mu di ko sol comprendre lii muy wax di ñaaw wax yu ñaaw yooyu yëpp ñun xamante nañu mais kenn du xas kenn comprendre man miraas ñu papa ma jël ñu papa jël si passé avion dem suma yon tukki suma alalu tukki Kenen na wax lu mel la wax même chose dafa dok fekk ne wakam dañu dema dem ba dañu carrément ce qui se passe ici c'est du n'importe quoi mom mo xam lu tout le temps muy ne suis télé bi wax rek wax ji fi wakam la du je fi ngeen ma fekk moom na ñëw si mbedd wakaam toog fi di wax waa wakaam du ñooy dof mais ñun ñoo dem ba ne lii dootuñu ko nangu dinañu jël alalu wakaam centraliser ko lépp luy suuf lépp luy xaalis lépp luy coutume lépp luy culture dinañu toog dinañ ko organiser waat waa wakaam nekkaat à l'aise si seen dëkk parce que on n'est pas des man mi cadre en bois la may oowee am na ñu ma gën nekk cadre comprendre

Nous, ñi dañ 1 verser ay un million deux cent million yu compte bancaire quand on l'a vérifié on a vu que majeure partie ñi ce ne du ñu ay Wakamo mais compte bancaire bi ñu fait conseil supérieur de la collectivité Lébou de Wakam structure bu existé donc nous, ñu attention lii euh, lii am na qu'est-ce que c'est que ça Nous avons fait une investigation on a vu que ni peut-être spéculation foncière mais ce qui est sûr ce compte-là est lié au gala. là mais taxul nous, ñu porter plainte on a porté plainte contre X parce qu'on a des ménages juristes parmi nous les juristes là qui étaient là ont tenu une réunion vérifier tous les documents qu'ils avaient en détention ñu on va porter plainte contre X on va ku def li porter plainte si instruction le juge s'est rendu compte que qui est le principal responsable je ne sais pas kan yow tu es un escroc man waxuma ko moom dem ba def conclusion boppam jël ko mettre que sous contrôle judiciaire inculpé ko alors que nous ñun porté pas mais c'est la justice Mon moo def son enquête def ses investigations def ses conclusions mu ñëw mu ne y jaraaf yi dañ si doon signé mais ñëpp xam nañ le compte origine du compte bi moo importance destination compte bi un compte bancaire quand je l'ai oublié, nan la ko fan la raison de l'ouverture justificatif yi banque bi laaj ñep ken déposé wu ko banque pendant des années compte mu ngi exister mais amul ben justificatif buñ déposé banque pour woné né ki moko ubi ki mom moy trésorier bi kii moy lii du structure la conseil supérieur mais le trésorier bi nga xamné mom lañu wax né mom moy conseil supérieur sen conseil supérieur ce trésorier là biñ ko convoqué tribunal mom yegul won sax mouvement de fonds bi yëpp dafa dem si juge bi ne ko mais lii man xaw ma si dara sax man en tant que trésorier alors que c'était lui-même qui devait gérer les fonds là donc l'escroquerie est avérée mais après nag affaire justice la ñun suñu yoon nekku si comprendre lépp lu fi am ñun ñu xalaat ne dañu war a dem si yoon dañuy jog dem si yoon porte plainte parce que li ma lay wax mooy mbokk googu ñu bokk moo tax ñun lu bëri duñ ko mën a def fii Wakaam te jomb nañu ñu naan waa Wakaam dañu viola waa Wakaam ay dof lañ te yooyu yëpp lu ko yóbbee mooy fréquentation télé bu metti parce que boo newee mag nga jàkkaarloo journaliste boo xam ne mën nga ko bàyyi nga toog di xas keneen koo xam ne sa mbokk la journaliste boobu day rey rek mais bu wóoree ne li nga wax mu ça la bës da koy publier gars yi di la paasantoo rek télé bu ne nga dem fa di wax rek mais bi ngay wax gisoo nay yaa ngi toroxal sab dëkk yaa ngi toroxal say mbokk parce que foo tourné ñu ne Dakar waa yéen seen waa ji doo leen ko téye mais yéen seen waa ji moom mooy loolu ah. neexuñu surtout encore ngay wuyoo jaraaf nga ne jaraaf nga man mii sax jomba naa di tontu jaraaf ba ma sañoon suma jaraaf comme bi ñu newee booy jaraaf bi bu génnee ñëpp ne xii jaraaf nga lay ñëw dañuy làqatu may ko mu jàll loolu moo tax nag Nous dama dama dama dem ba gis les ça va ça peut plus continuer dëkk bi dafa am nuñ ko structuré won dafa amone ay jaraf dafa amone jaraf ben jaraf sax mom moy li nga xamné ne moom moo am après la dem ba euh, affaire u néegu baay euh, doomu bayax yoyu ñew ñuy xëccoo mais ba légui grawul parce que jaraf c'est un titre honorifique jaraf du gérer dara jaraf dañ koy gérer ñew rendre ko compte ñu créé mu waroon a am conseil day jàmbur conseil des jàmbur bu wakaam ñu bëri magal nañ ñu ngi seen kër tëdd ñu bëri gaañu nañ yàgg na na leen yàlla yërëm kenn remplacé leen ñii fi ne fii ne ay jàmbur lañ ñu si bëri dañ leen copte moom moomu moo leen copte fu mu joxe ñooñu foofu la ñuy xool comprendre nga baal ma léegi nag mu waroon a am conseil des frais comme conseil des frais ñoom ñoo mas a doon obstacle bi fii si moom il a fait en sorte que conseil des frais amatu fi fait. am lay libre di def lu ko neex signé protocole entre eux trois frais amul de normal dem annoncé une fois deuxième fois nous avons dëkk bi y a sept quartiers traditionnels ces sept quartiers traditionnels ont désigné chaque quartier, 7 personnes. Ces 7 personnes-là, nous avons regroupé 10 euh, personnes, autant pour moi. Ces 10 personnes, nous avons regroupé Nous avons créé, assemblé des frais. Donc, nous n'avons que 70 frais. 70 frais, nous avons tous les frais, nous avons tous les frais, nous avons tous les frais. Nous avons tous les frais, nous avons tous les frais. Une seule personne. Nous avons tous les frais, nous avons tous les frais. Nous avons tous les frais pour faire s'il est prêt à faire comme tous les fils dignes fils du village ok mais si nous ne mën nañu def. nous nañu Nous terrain. terrain boo titre foncier depuis 2000 depuis 1948. ce titre foncier là ñu xëy benn suba ñu ne jël nañ 000 mètres carrés Il ko titre foncier boobu c'est un titre foncier de la collectivité lebou de Wakam c'est un patrimoine indivis Ben nit mënu ko jël jox ko kenn ku ñu ko jox bo si défé sa xaalis na la wóor ne ñàkk nga ko nous on se battra jusqu'au bout pour récupérer notre patrimoine loolu la doon wax di leen remercier nak parce que newoon naa bu ñu leen owé sax do leen ñëw parce que ñëpp dañuy wax né kenn mënul jot si médias yi parce que fu mu dem joxé fa xaalis ñun nak duñu jox kenn xaalis koo xam ne nag am nga liberté de la presse mu ngi commencé journaliste bi si boppam comprendre buñ la nit waxee dara nga dem wari ji kii si des ne ah lii lañ ma wax dama bëggoon nga wax si li nga si xalaat mais jàpp leen ne rek ñun duñu xas kenn moom mën na toog si tele bi bés bu ko neex wax lu ko neex mais du yàgg ba ñun ñu toog naan ko saaga wala xas wala lu de lu mu mën a doon duñu dóor suñu rakk duñu saaga suñu mag wasalaam ngeen baal ñaax